salaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk internet yi Géejawaay info euh, ak Géejawaay info TV ak Géejawaay info point com tey ñu ngi am mbégte ak kontaan bu mag ñu dalal benn euh, koo xam ne kilifa la euh, mën nañoo ne suñu mag la ñuy seen papa la ñuy seen grand la muy El Hadj Mbaye Diagne Ndiaye ñëpp ko xam ci Géejawaay précisément ci notaire balaa ñoo tàmbali waxtaan bi tey ñu war a waxtaan ci actualité politique bi nga xam ne xew na ci réew mi aussi Géejawaay au passage dinañ ci wax. Euh, ma jox ko mu introduire ñu commencé waxtaan bi. Euh, salaamualeykum wa rahmatullah euh, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli seen tëmb tëdd bi di sant sunu ay waajur ñu ngi sant waa waa Géejawaay info si vraiment seet bi ñu seet nii pour ñu waxtaan mbay Diagne Ndiaye nag. nit simple comme ni ko d'accueillir dëkk fi ñu ko tamit si yëngu-yëngu jeune yëpp muy Est bi mu jaar na comité de lutte président bi Limamou neuf na trésorier général foyer bi aussi euh, coordinateur assuré secrétariat permanent de la coordination des élèves du Sénégal au nom de avons Limamou Laye fi tamit. Euh, district de football bu Guédiawaye fi président notaire nek secrétaire général ASN notaire nek vice président euh, football club nek fi membre de la ligue de football de Dakar nek fi aussi vice président de l'Orcaf de Dakar aussi nekone secrétaire général conseil national de la jeunesse du Sénégal aussi à ce titre aussi euh, beaucoup aussi conseil d'administration FNPJ Fonds national de promotion des jeunes Bien xamné

électeur la boo électeur la ci insiste def ko enregistré ci parrainage bi lan nga ci wax tay candidat candidature yi nga xam ne conseil constitutionnel bàyyi na leen ci am ak ñi nga xam ne dañ leen waaw xam nga parrainage bi moom li ñuy wax rek euh, piège la dès le départ opposition bi dañ def erreur si njalbeen ki maanaam en amont parce que mbir bu taxawee si njalbeen ki fa ngay commencé xool ndax amul ndax sërëxal mbaa amul benn piège mais dañ ne parrainage rek ñoom ñëpp ñu xooluñu lan mooy si nekk piège ak lu si newul piège bi voté loi bi ne dañuy changer article L57 bi dëxëñ si avons électeur boobu laa sur la sonnette d'alarme ne leen lii mooy li nga ne mooy deux ans mal leen lii moo nar Karim Wade si course bi euh, Khalifa Sall si course bi mais bi koy wax boobu États-Unis ko au sérieux parce que constitution bi ni mu bindoo amul fenn fu ñu defoon nii nit ki bu newul électeur mënoo nek président donc Karim inscriwul woon donc mënoon na nekk président mais bi défé parrainage bi bu modifier article dougal ci moom électeur fa le combat opposition bi fa lañ ko commencer perte mais malgré cela ñi ngi doon continuer di dem préparer si parrainage bi dem mais dafa nek combat bo xamné doon won un combat juridique day rek waxat nako le combat c'était un combat politique parce que opposition bi dafa waroon créer des rapports de force favorables, yo xam day favorable ci opposition ba nga xamné tay dinañ pousser gouvernement bi pousser ministre de l'intérieur bi ñu toga ci table bi saytuwaat parrainage bi nga xamné askan bi dañ ko woote woon si référendum mais dafuñu ko daño dem ñoom ñëpp sumbaxloo dem wuti ji ay parrain dajalé ay parrain parce que 57000 ba six dafa dafa yomboon si surtout ay parti yu mag yu mel ni réew mi grand parti bi nga xam ne sympathisant laa fa yu mel ni euh, ay euh, professeur Issa Sall bu bu pur yu mel Sonko yooyu dafa yomboon ba nga xam ne piège bi duñ ko gis ñu dem dajale biñ ñëwee déposé mais erreur bi mooy logiciel bi nga xam ne tey jii moom mooy war a saytu war a gëstu xamuñu lu si nekk parce que logiciel yaa koy programmé Boko ko ne ko seggal ma luy couleur bu verte lepp luy vert du koy génne donc lo si programme rek la tay opposition bi aussi bien opposition que société civile bi fa lañu daanu parce que logiciel bo xamné ne xamoo lu ñu si programmé ñu si vérifier say signature mais rek sa da fay yomb mo leen dal mais bim mu leen en un premier coup les autres ñi nga xam dañu jàll ñu mayoon leen ñu mayoon leen chance pour ñu ci si ñu 27 yi nga xam dañ leen recalé won 25 alors que combat il faut la waroon commencer encore ñu avons beneen moyen bu nous regrouper pour nous. xeexuñu ñu indiwaat ay recours dans le jeu du gouvernement bi ñu dugalaatee recours ñu rëqaat seen digg et que gouvernement président euh, premier ministre waxoon na lu leer autant dafa ne duñ am lu mat lu cinq candidats et au final, ça s'est vérifié Khalifa ak qui, euh, euh, ak Karim wad ñi nga xam dès le départ depuis 2012 Macky mu ngi préparé nu mu liquider Khalif qui euh, euh, Karim en 2014 2015 bu munul juboo ak Khalifa mon ngi koy créer pax nous mu ko mais du ma du day bàyyi ba egg si fii tey di am si ñoom yërmande mënul nekk logique on moo éliminer leen mais dem na ba egg si élimination bi éliminer leen teguñu ko fenn nag parce que loi boo koy defar doo ko taay sur mesure loi donc koy defar mu impersonnel nga xam ne nit munoo xool loi bi ne diw moo ñu def loi bo beugé mu yag mu pérenne loolu dang kay def dang kay def loi boo xam nekk lo xam règle générale mais boko tayé taayee si Karim Wad comme ni def tayé ko si Khalifa Sall c'est clair que au finish ñom ñaar duñ dem maintenant nag opposition bi luñ wara def tay moy créer des rapports de force wacc wax ak wax ak wax ak kilifa mi parce que nak quand bo que si combat di privilégier dialogue privilégier concertation indi ben loyauté te ki nga jaakaarul gemul dialogue bobu gemul loyauté bobu, amuko mais on ne peut pas être plus loyal que le roi on ne peut pas être loyal devant quelqu'un qui n'est pas loyal da nga am yenen moyen de pression moy comme li ñom de def kéro donc apprécier wacc ci tali bi ak euh, Sonko dem occuper place de l'Obélisque opposition bi la waron def dans tout dans dans tout le territoire national pour xamné li piège la loi bo xam dañ ko def pour wañi les candidats yi nga xam ñom ñu ñoo ëpp doole ci Sénégal loolu la def ni maintenant Macky dafa éliminer ñi nga xam dañ bari doole deseeg ay ay ñi nga xam mëna leen amna fu mu leen mëna bëss parce que piège yi des na de dafa dess parce que ku tan say mbeur yi ngay bëreel ah tan nga pexé bo leen daané ba paré té loolu la def fu mu nekk nii. waaw opposition bi comme ni ñu wax rek xam nga tey bu ñu boo booy dem si si jeu si kujje règle dafa war a def dafa war a dañ ko war définir wax mu leer nañ mais opposition malheureusement pour notre opposition bi ñuy dem si xeex bi léegi règle yi leerul seen bopp naka la ñuy saytoo bu ñu bu ñu dajalee parrainage logiciel bi lu si nekk toutes ces interrogations réglé wuñ ko ils n'ont pas trouvé de réponse ils n'ont même pas

présidentielle bo xam ne mu ngi préparé depuis depuis 2012 def ci ay xaalisam def ci def investir des centaines de millions pour 80 et quelques électeurs mayo ko sax mu dem sayt jëlaat ci li nga xam ne am na mais pièce bobu opposition dañ ci wara taxaw xex parce que instant bi mbéjum kanam la nit moko ko war fajal bopam mais buñu togué toogee yox yoxi tamit mais ni lay defat jàllaat jël pouvoir bi dem deuxième mandama lolou da fay lèr nañ fu nek ni xex bi wessoul parce que rapport de force mënu ko sax déterminer dans si 48 heures ou si 96 euh, heures en 2003 en 2012 le 23 juin le rapport de force bi nga xam ne population et ak opposition créé mais c'est en moins de 24 heures le pouvoir a cédé. en 2012, mhm. parce que boo seetloo jeunes yaa naa maar ñu ngi fi woon. Mhm. jamono jooju courant bi di coupé bu bëri. maanaam mhm. population bi dem ba bu soobee leen génne mais nit ñi ñoo bëggoon di ñaxtu seen bopp aussi Ablaye Wade tamit yoon ko chef de tenue bëggoon ko def loo neex population bi dem ba yew est-ce que loolu tey gis nga ko bo xam euh, opposition ba ñu ñëw pour population bi génn. wa xam nga opposition en fait sax leader leader dafa am lu am solo ci leader leader lu ci am solo mooy ngay orienter ngay jël en charge les préoccupations des populations do baye ba élection jot nga bëgg mobiliser les populations non non da ngay jël sen préoccupation santé bi buñu waxé nga def communiquer. jappalé leen né leen kat ñi li ñuy kaas dëggal war nañu ay jumtukaay bu euh, enseignant yi génné bu nekk deug nga bind né enseignant yi kat vraiment communiquer, parti communiquer, def ay communiqué de presse né ñu ngi soutenir enseignant yi si xeex bi parce que liñu ñuy wax dëgg la baykat yi buñu ñu fay ñu leen seen gerte nga def ci communiquer mais opposition biñu amni am ni léegi dafa nekk benn opposition bo xamné on peut dire que c'est une opposition théâtrale parce que du ñu dem jël en charge les préoccupations des populations nit ki nag boo bëggee mu jàppale day fekk si ay problème mu mbokk siy fekk si tey bu doon tey tout le mécontentement populaire jëloon nañ ko orienté ko dans le sens indiqué des aiguilles d'une montre tey ji fu ñu woote nit ñu wuy si leen loolu un problème de fond bi tay ji mais nit ki boudé yow li ngay xeex du ci gis boppam wala du la jëkk lu dul élection jot mais boko bëggé mobiliser mobiliser fay difficile et puis les partis politiques aussi ne sont plus des partis politiques parce que parti politique bu ñëk da ngay am da ngay am bureau yu yu da ngay am ay ay ay ay ay instance mais actuellement ni parti politique sen instance yi les partis se se résument à leur leader légui sax da ngay xol parti pour nga tudd turu parti sax problème la leader sont ngay tudd parti diw alors que nit idée boo xasse ba génnee associations. association perte nga idée bi moma ko mais tey ji boo grand parti ñun la moy kan ñun la parti mali gako nga ni parti du moy kan ñun la parti Idrissa Seck conception boobu tant que mu ngi dañu fomp ñu ko parti politique comme ñu structuré wuñ di wacc ci base bi di structuré am ay CB comité de base am ay sous secrétariat départemental am ay instance nit ñi di identifier wu seen parti pour ñu mobiliser nit ñi day difficile wa xam nga euh, benn mbir dam ko yàgg di wax si kaawu baylaa wan bi laa ko waxoon euh, temps temps PDS bi ne way baylaa wan détourné wul waa nguur gi ñoo doon jël si foofu xaalis di jël mais yow da nga jàng xam nga un magistrat dafa jàng li ko yàlla liñ ko jàngal nit waru ko defloo leneen loo xam ne dafa méngoog lu mu jàngul tey boo ko defee rek mooy wàcc nga sa yoon tey Macky Sall mun nga ko blâmer mais doo ko blâmer à 100% parce que bu demee gis magistrat bi magistrat bi nekk sama liggéey laay def est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que problème dana am du am mais magistrat yi bu ñu nangoo yi def loo leen parce que conseil constitutionnel lu ma gën a metti si ñoom recours bu opposition bi indi ak de nature telle quelle soit la nature du recours bien avant parrainage bi dañ ne ñoom affaire bi amuñu si amuñu si prérogative affaire bi euh, conseil constitutionnel mënu si wax mais quand il s'agit de sanctionner ou bien de de de de prendre en charge les préoccupations yoo xam dafa intéresser le parti qui au pouvoir toujours ils sont compétents lors dafa ma si l'on nag xam nga dafa nekk loo xamante ni moom dafa doy waar opposition bi mënul dugal dara bu ñu dugalee recours il est incompétent mais bu bu amee loo xam ne day dal si ko opposition le conseil constitutionnel est compétent mais loolu nag dafa dafa dafay dafay yëngal borom xel dafay yëngal borom xel moo tax liñ doon kaas en 2000 la séparation des pouvoirs doit être pour que état soit démocratique parti pouvoir législatif doit nekk de côté le pouvoir judiciaire indépendant le pouvoir exécutif de côté mais quand le président de la république et le chef suprême de la magistrature nomme et révoque les magistrats si vous magistrat buy yox yox une mais lu ko